yàlla sunu borom bind ay jaamam ne kii bés bii bu juddoo bës bi lay dee sinon heure bi rey ngeen ma bu yàgg bu yàlla sunu borom na mu loon ne Kaliphone dina dund quarante deux ans wala quarante cinq ans wala cinquante ans faat ngeen ma bu yàgg parce que jéem ngeen lu ne seen coxorte moo egg foofu gis nit ki ne da ngeen di koy liggéey ji Adji Sarr ba mu génne fii wax lu muy wax Sonko da a génn tuur ay limong ak ay kaaneek naan Adji Sarr ak këpp ku bokk ci complot bi Macky Sall di nga gisu di nga gis aji Sarr dañu koy suulu gis nañu video yi mu ngi fi Adji Sarr tey mu ngi en bonne santé Adji Sarr bi Sarr bu sell bi sànq la ma bunju message mu ngi en bonne santé un an ci ginnaaw aw ma jot pour gon leen video yi mais dinaa si ñëwaat ngeen génne naan def nañu cosaan jël ay bale bale jël ay kaani xeeñ sotti jël ay netetu sotti dem tuuri xaw ma lan ak lan naan complot bi complot bi ku si bokk da ngay dee Ousmane Sonko ku ko laal dangay ngay dee ba léegi kenn deewul fii yàllaay ree yàllaay mooy teg jàmm bi lu ko soob mënu leen ci mbindee fii franc ba ngeen di toog di jéem a naan dangeen di menacer doomu aadama yi Kaliphone bu ngeen mënee si moom dara buleen ma def ma torox faat leen ma comme ni ma waxoon sëriñu Ousmane Sonko boobu génnoon quatre mois si ginnaaw mu ne Kaliphone bi dina ko def loo xam ne léegi ñu tàggee ko ma ne ko nañ may tàggee de neex na boobu léegi maa ngi sant sama borom maa ngi lekk maa ngi maa maa naan maa ngi taar kàllaa dolli waatal garab bi pour ma gën di taar kàllaa da gën di font fii ragal yëpp yàlla la ragal weddi yàlla la ragal yëpp yàlla la ragal weddi yàlla la te ñun ñaanuñ yàlla naan dañuy weddi suñu borom nit tëkk ñu ñu tiit subhanallah moo tax mun leen si ñun franc dara mënu leen ko si ñun ñu dégluwaat Baara lay dernière borom 73 ans. tey xam-xam bi ma la wax nii. xam bu mu ma joxoon moyen reconnaître ma tuuti ma ànd sama collègue yi ma hmm. man mën naa jëlee nit ñi ci dund juróom fukki cinquante ans. juróom ah, ah, ah. 73 ans. lii nga xam ne soxal na leen sax dina raar lool nga gis nit kuy ku faatu. lu dul accident ci 53 ans. parce que eh. mën naa nekk boo génnee fii nit du dee bu ko te amul 80 nangam. Euh, voilà ba te lu tax sénégalais yi kon ni ñuy dundee la te loolu science naturelle moo leen ci mën a dimbali. Mhm. léegi état boo demee ci OMS organisation mondiale santé. Mhm. état dafa reconnaître médecine traditionnelle. Mhm. mais suñ ñëwee ci biir réew mi yow xam nga ne sëñ Cheikh. Uh-huh. ñu reconnaître ñu. mosoo gis benn place bu ñu romb ñee fii kat dañ fiy faje fajum cosaan ñun suñ biir kër yi rek lañuy faje ak biir néeg yi. te pourtant résultat bu wér. tey soo demoon ci wër sëriñ sépp kenn ku nekk li ñu faj par weer. Mhm. ñii faj témorite ñii faj asma ñii faj jabet ñii faj euh, prostate ñii faj. si yooyu nga nekkoon lu tax fajaloo sonko ndigam li <laughs> lu tax waxoo sonko lu laay ba continuel sa saaga yi sa saaga yi foofu la yem yow yaay mer man meruma maa ngi taar kàlla da ngeen may saaga ba ma saagaa nday Sonko ngeen demaan ne way dafa réew mu ngi saaga Sonko yaa ngi nii laay baa nga tudd nitu Ousmane Sonko nga yaa ngi saaga sama ndey di bëgg bu ma demee Casamance fekk yaay Ousmane Sonko fu mu tëdd ubbi tànk yi après nga naan Kaliphone dafa réew saaga na yaay Ousmane Sonko te yéenay saaga sama ndey te ndey ndey la mënu leen bëgg yaay Ousmane Sonko sénégalais buy wax si Ousmane Sonko ki nit Sonko ngay ñëw commentaire saaga ko nit ñee ma ñaan rek parfois ma koy muñ may gis seen saaga may muñ fan yëpp gis ngeen saagaw ma mais damay dajale alkaati du bàyyi dóore lu ma si góobe gar sama baqan bi joxe naa ko pour ku saaga sama ndey ma saaga ki tax ngeen di may saaga bu ma deewee dem ajana parce que sama yaay moo ma gën a looy gis te dañ maa jàngal nit bu la dóoree fayul si ay saaga ngeen ma dóor si ay saaga laay fayu boo koy dajalee nag parce que ñu bari dañ may woo ay kilifa ndeysaan partout dans le monde naan kali dañ lay bàyyi xel bu baax mais boo commencé saaga rek après ak sunu doom yi di toog ma ne dinaa leen di comprendre mais xam nga nga ne danga bëgg Sonko da bëgg yaay Ousmane Sonko mais doo bëgg kalifon doo bëgg yaay kalifon lan la la Kaliphone def ba tax nga commentaire fi ne da ngay saaga sama ndey bi tëdd àllaaxira lan lan laa la def def ma la daal Sonko mooy politique gëm nga ko am nañ droit wax si moom yéen bés bu ne yéen a wax si Macky Sall te kenn saagawu leen kenn dóoru leen kenn xasu leen léegi ñun bu ñu waxee si Sonko cagala la Sonko violeur la Sonko nit ku yées la Sonko rebelle la ngeen da ngeen ñuy saaga ngeen teg ko fan mais loolu ak ñi ngeen di koy def. ñaata yoon yéen ngi may saaga may saaga ndey ki ngeen yaakaar ki ngeen jox bakkan àdduna ak àllaaxira te mujj Franc te du mës a mujj fenn da ma doon ne France ngay nekk di saaga Sonko ba may nekk France ngeen di saaga sama ndey may saaga Sonko ba ma ñëwee Sénégal ngeen saaga sama ndey may saaga Sonko bu ngeen arrêté rek ma arrêté bu ngeen arrêté wul nag may continuer di gis ma dajale contrat la man ak yéen. xooluma si APR xooluma si Mamadou Ndiaye xooluma ci leneen sama bopp moo ma la gënal du bañ naa la yaay Ousmane Sonko mu ngi dund jël ngeen samay photo dugal ci YouTube bi nitu Pastef fi saytaane yi Kaliphone moo saaga yaay ku sell kii Kaliphone amul respect moo saaga yaay Sonko waaw yéen nit ñii di saaga Kaliphone lu tax du ngeen def vidéo wax si ñoom ne yéen ñii di saaga Kaliphone yéen ñii di saaga journaliste yi yéen ñii di saaga kilifa diine yi il faut ngeen arrêter lu tax du ngeen def vidéo yooyu moo tax man loolu ça m'intéresse peu bu ma gisee seen vidéo si YouTube bi ay ree la may def gars yi Kaliphone amul yar Kaliphone saaga na Sonko kuy Sonko ñaata xaju Sonko ñoo nekk si internet bi saaga papa jàmbur yaay jàmbur yi saaga ngeen fi mettre El Hadj saaga ngeen fi Baaba Maal saaga fi Youssou Ndour saaga fi ñëpp presque Sénégal ba mu daj léegi ki ngeen yaakaar nag buñ ko saagaa ngeen wuy sama ndey Sonko mooy kan Ousmane Sonko dafa gën benn sénégalais ci biir Sénégal man xaj bi mayor sama biir kër moo ma gënal Ousmane Sonko pour ngeen xam li ma leen di wax xaj bi ma yor sama biir kër moo ma gënal Ousmane Sonko man lu ma Ousmane Sonko mën a apportel man maa gën usmaan Sonko. parce que man violé wu ma moom dafa violé ba mu ne wàll te bàyyi jabaram nag buñ doon doxal charia heure bi dootu leen wax Sonko faat nañ ko parce que dafa yor ñaari soxna dañuy gas pax teg ba mu des fii ñu door ko ay muul mu dee dafa njaaloo kooku ngeen di gëm ab caga acca wane leen reewande xam nga sànq ba léegi ñu ngi live wax ma si discipline di kaf di ree bu ngeen commenté saaga ma dam leen di wax loo xam ne da ngeen di koy dégg di jooy dinaa non Kaliphone mooy wax lii ku sell ki man lijjantiwu ma seen ku sell ki man sama bopp laa lijjanti saaga leen ku leen neex mais man bu ngeen ma saagaa rek ma dem Casamance yaay Ousmane Sonko mu ngi Casamance jël leen vidéo yi ngeen téléchargé dugal YouTube yóbbu leen TikTok na gars yi naan l' insulteur public man je m'en tape l' insulteur public te ku dem seeni page Facebook muy jigéen muy góor yi leen toogal si réseaux sociaux yi saaga ngeen nekkee du matin au soir barki démb si mujj seen doomu xaraam boobu ton nit boo xamante tekkiwul franc xaritu Ousmane Sonko keuse alaaji Moustapha Gueye génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljana ton dem page Facebook am ne imaam góor jigéen ñi dee na ne alaaji Moustapha Gueye moo nekkoon imaamu góor jigéen ñi te yéen ñëpp gis ngeen loolu waa Pastef amul ku si live wala bind communiqué naqarlu loolu amul bu yaay Sonko dee woon suba ma taal sama laay Facebook di teg ay Baaba Maal ay Youssou Ndour di rëm tam bi tam yaa asugay ne la Kaliphone jouru yaay Sonko ba mu deewee ay musique la doon teg te yéen lu tol ni Alaaji Moustapha Gueye nekkoon fi imam doon fi jiite ay nit ñuy dem Màkka doon fi def guddi àjjuma di waaraate lu rafet rek la def senegal mu génn àdduna ñu waroon xaar ngeen ne ñu ngi koy jaale ngeen di dem di bind seen Facebook naan imam góor jigéen ñi dee na waa passé fi dugg foofu di commentaire parce que président mag Sall la àndaloon àndut ak ay doomu xaraam ngeen ay doomu xaj ngeen ku ne du leen saaga faw muy saaga seen ndey parce que yéen seen dofaange gi faw ñu am ñu dof ni yéen ngeen di bomb rek ñuy bomb du mujj fen dara mënu leen ko si ñun ay doomu daa am ñu may seetaan Akhenaton il est de Pastef te waa Pastef ñoo koy partagé ñoom Basir Diomaye Faye ñoom euh, sonkook ñun ñëpp dañ koy seetaan lu toll ni oustaz imam Moustapha Gueye dem leen page Facebook Akhenaton xaar mool ko xaar ma dem leen ko xaar ma dem ay temps euh, kan moo gaañu woon xalif bu bu laayee ni Akhenaton lan la bind xalif boo xam ne occupé woo ñu doomu aadama yi boo deewee sama yoon nekku si loolu la bind te yéen ñëpp gis ngeen ko lu toll ne xalif général de Layènes génn aduna ak bu cene ba foog naa ñoo génnandoo benn jour aduna bu ma juumul ah na ton bind man du ma ay xalif généraux yoo xam ne lijjanti wuñu woon ba may dund léegi yéen ngeen ne yéen ay patriote ngeen ne yéen yéen a war a wax si réew mi ngeen ne ñun waruñu wax ñun da ngeen ñu gis fu ñuy diŋatee ay imam lu dul seen imaamu saay-saay yu caga yu bon yooyu tappalekat yooyu doon jéem a xeex président Macky Sall di ko jaxaseeg askan bi naan day dooleel góor jigéen imaam kacapan yooyu soi-disant duñu ay imaam ay politiciens boobu lañ dugg seen biir caaya te tëju ko da ngeen déggati ñu taxaw fi naan kuréel ànd xeex dooleel euh, kii sand sandi jamra xaw ma lan ak lan seen kii nu mu tuddati pas jamra la da ko déggati sàmm jikko yi xaw ma lan da ngeen ko déggati du ay soi-disant imam comme dof bii dugg si kaso bi fan yi xaw ma nu mu tudd jaañ xaw ma lan ak ñeneen xaw ma lan saar ay nit yu tekkiwul dërëm ay cagaak lépp ngi seen biir association boobu ngeen taxaw ne da ngeen xeex président Macky sàll taxaw naan sàmm euh, ànd sàmm jikko bi ànd sàmm jikko yi di dem si ay kilifa diine di la naan mag sàll day daganal góor jigéen di def ay manifestation di invité ay oustaz yoo xam ne dañoo réer di naan Macky sàll day daganal góor jigéen ba ma toogee président Macky sàll ma ne ko loo xalaat ci loolu mu wax ko ci olof boobu ngeen tëj seen gat yi ba bële kenn déggatu leen boobu la seen association bi jaar noonu tas riñootu leen waxatu leen même ba ñu jàppee seen waa ji bokk si yéen gis nga riñoowu leen sax wax parce que tas na parce que ay fen a ko laloon xeex président Macky Sall ko taxoon jóg def association de baadoo la fii si réew mi la ñu nekk comme yéen da ngeen ni ñuy jox cër man duma leen tuddee imam imam yoonam nekkul ci politique bu gisee dëgg nag mu wax bu gisee fen mu wax mais yéen da ngeen di politique di dem di toog ak Ousmane Sonko di selfeek moom di añ moom parce que président Macky Sall li ngeen yaakaaroon ci moom amu leen ko bëgg naan da ngeen di jaxase xelu nit ñi mais ñun heureusement yàlla may nañu as xel as tuut ëpp leen ñu xel ñi ngeen di dóor ci biir Sénégal ñun mënu leen ñu dóor mënu leen ñu nax ay dof rek ngeen di nax moo tax tey kunkande boo demee ay junni nit di koran ay dof lay nax ak yeneen i morom yu mel ni kunkande mooy yéen genre soi-disant imam yooyu yeneen naan da ngeen di sang nit pour cat jóge si moom ngeen tëddee jabaru jàmbur yi yéen la ay nit yu tekkul franc bëgg def le tout pour Ousmane Sonko falu ñëpp xam nañ ni Ousmane Sonko jeunesse bi yeewu nañu toppatuñ ko Ousmane Sonko gisoonu mu ne selaw xam na lu tax mu ne selaw depuis weer génnut waxul ubbiwul gàttam bi xam na lu tax xam na lu tax yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm